non seulement j'ai le scepticisme. mais on est encore dans le piège de Gavi qui a invité notre président en France. ah oui explique. ça moom j'ai vu j'ai vu vous avez fait une sortie ko expliquez ñu docteur qu'est-ce qu'un président va faire dans des vaccinations. Hmm? n'est-ce pas ndaje pour. xool yenn voies et moyens la ñuy def ba Afrique mën a am. ay ay usines ay industries. Mm-hmm. yu defar propre vaccin. pourquoi defuñu la même chose pour les voitures. waaw mais ça c'est un autre ça un autre débat léegi ñu ñëw ci vaccin un petit alinéa où ils vont utiliser les Africains comme des cobayes. Mm. et le président va signer sans le savoir. mais c'est les Africains qui vont fabriquer leur propre vaccin. comment il faut que existe d'abord. exemple bi mooy wax l'hépatite virale ça a été testé au Sénégal. oui ci sa mbokk yi sol yëre yi mbokku jomaay yi. séeréer à Fatick. Hmm? waaw te hmm? j'étais médecin j'ai appris la médecine dans une faculté où ce vaccin est parti on prenait deux étudiants du Sénégal et un étudiant du Sénégal et un étudiant pour venir euh, surveiller les sur les gens. Hmm. le vaccin bi ñu defe ne c'est ok hein ñu valider ko commencer ko vacciner en France en Europe. en Europe c'est ce qui est bien c'est qu'il y a toujours des centres ñooñu bi ñu defee ay recherche nee nañu mais vaccin bi sax kenn ma ko woon a may parce que mënoon joxe benn maladie boo xam ne ça s'appelle la sclérose en plaques hmm. ça bi mu finir bi finir mu ngi koy joxe saa ba dire avant muy finir ñu koy essayer sur les Sénégalais ban jéyee la fa def hmm. imaginez rek loo xam ne dañ demee demee pare na taxul mu am benn maladie bu grave bu muy joxe hmm. kooku bi muy nekk bu bees ñu di ko toggat di ko <laughs> di ko améliorer kooku lu mu def à Fatick yaa a truc et vous êtes vous savez qu'on le deuxième euh, dans le monde à avoir l'hépatite virale. l'hépatite virale taux bi l'hépatite virale ah dans le monde entier après la Chine c'est le Sénégal <coughs> mais kooku c'était bien avant le vaccin moo taxoon tamit waa ji intérêt sur le Sénégal. pour def ko fii parce que boo def def recherche de l'argent il faut que tu trouves euh, ce qu'on appelle la, cible mm-hmm. la cible c'était au Sénégal où on disait qu'on était les les deuxièmes porteurs de, de la maladie mm-hmm. donc moo taxoon ñu def ko au Sénégal mais pour te dire cet exemple là rek hmm, mooy loolu mais bu fekkoon ne def ay développement la rek développer le pourquoi on développe vaccin on développe pas la pêche la pêche ça nous intéresse mais suñu gavi euh, de d'accord oui mais comme comme ci secteur bi la ñu nekk. comme ah, secteur u santé amul gavi de l'aviation amul. waaw d'accord gavi de la presse amul. mosuñu invité bi président ne ko kaay euh, ñu wax la ñaati la lañ lay jox pour que tu te participes au développement de la presse. là c'était un pactole qu'on devait lui donner est-ce que moom il avait les bagages pour savoir qu'il faut signer ou qu'il faut pas signer. et apparemment yooyu buy am sax c'est d'abord des préalables techniques. médecin ou de euh, physiologiste yu réunir ba mu war a jeex ñu ne président kaay mais fi mu nekk nii dans ces premiers trois mois amoon na vraiment tous les soucis que d'aller dans une réunion qui était très très spécialisée. il fallait mu am au moins des médecins. il fallait que des médecins nous expliquent nous les médecins même on n'est pas au courant. xam nga yéen bon <laughs> ce qui est grave ñun bu ñu nekkee représentant du corps médical au Sénégal. Mhm. ba Sénégal di dem ci benn réunion pour les vaccins au Sénégal. pour la fabrication des vaccins au Sénégal il faut qu'ils nous écoutent quand même yan vaccin la ñu soxla Sénégal mhm. ça fait 36 euh, de ce qui se passe au